waaw sama teewaay fii damay mbër bokk ni nga wax ne bokk si njur gi bokk si bokk si mbër yi tamit ma bëgg nga xam lu jëmale mbëri kanam ak la nga xam ne luy enjeu mbëri la ñu bëgg ko waxtaanee xool la mooy ñu jëmale kanam kon tey bu fekkee ni loolu lañ soxla kon lépp lu ma jàpp dama koy bàyyi tey jour tay bi sax dafa fekkoon ma jàpp benn voyage mais dama ko mujjee pour rank pour bis bi di wax daal ñëw nañ fi pour déglu taataan suñu kilifa yi nga xam ñoo fi nekk gis mel ne ay Balla ay Gris Bordeaux Baye Mandione ngi fi Papa Sow fi ñoom ñëpp ñu ngi leen déglu daal di xool ñoom lan lañ fi lan lañ fi indi waaw si lan la ñu war a waxtaan ak ñun ñu paree ñun ñu xam li ñu ñoom ah ñu taataan ci lu baax rek ñu jël lu li ci nar a yàqu ñu defar mais lu dul làmb ñoruñu. dafa mel ni waaw mais lu dul làmb ñoruñu waaw man lu ñu doon waxtaanee te waxtaan ñu làmb bëgguma waaw ndax làmb moo ñu ñor làmb moo tax ñu bàyyi suñu yite ñëw fi activité làmb pour mu jëm ci kanam loolu lañ soxla kon ñu ñu taxaw di déglu di leen xaar ah xaarew ñu leen feneen nag mais fi leen xaare mooy que ñu wax la nga lu jëmee làmb kanam la. waaw ñu ngi waaw ñu ngi ñu ngi toog yi déglu rek di xaar ñu xaar rek làmb ji ibbi parce que làmb moom dama waxoon ne moom làmb tant que bàyyiwuñu affaire yi am fii promoteur ma sees tam da nga yàq sa ndax du ma ko jël ndax bugguma jël lu ma moomul ndax mën nga ko jël leneen xew fii dañuy mooy loolu daal man sawaruma si mel noonu moo tax ma doon toog di déglu mais bu doon loolu kon heure bi jël nañ avance bi yàgg mais tamit mbari jël avance te bëriwuñu dafa metti dafa metti un an nga yor ko avance jàmbur bëriwoo xaalis bi jeex na say mbokk ñu ngi lay yaa ngi dem ko ñëw loolu dafa metti kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla def jàmm daal yàlla na fi jëlee jàmm rek tey. waaw mais jëwriñ maa ngi lay fay. naka tey sant yàlla bu wér. waaw dëgg la maa leen raw. waaw borom timbal ma si borom jaalu muus. borom timbal timbal ma ci. Oh, waaye maa leen di bëggee fay naa la. sant yàlla bu wér a hmm. loolu mooy li war. parce que ñun boo gisee ñu dajaloo fi tey ñun solution rek la ñu bëgg te solution mu ngi ci loxo monsieur président de la république mu ngi ci loxo Matar Ba mu ngi ci loxo CNG parce que ñun ay xale lañ ay ndaw lañ amuñu dara lu làmb tey bu ñu bëriwul defuñu dara lan lañu fan la fan jëm ak fi réew mi toll nga xëy war a gis sa yaay gis sa papa gis say rakk nga war leen soutenir ci yenn yi amoo amoo foo leen jàppale day metti ñun làmb rek la ñu am li ñuy ñaan daal mooy monsieur le président. nañu dimbali jàppale ñu ubbil ñu làmb ji ndax ñun amuñu lu dul làmb. waaw gis ubbi lépp moom des làmb. waaw loolu xam nga ñun tey mbëri boo boo gisee dañ naan mbëri di ñu dëkkale ay mbëri du ñu niit ay mbëri nii lañ te mbëri ay noobu lañ mbëri ñoo fii bëgg kër yu baax yi oto yu baax yi. lu dëgg tey jii nii tey boo xoolee fii boo duggee xool di nga gis mbëri tey nga xam ne ñii ay noble lañ. moo tax mu tuddee leen tey alaaji ah moo tax loolu moo tax ñu yéex a réagir yéex a wax boobu ba léegi déggoo ñu wax ñu ngi toog suñu ruq parce que bëgguñu ñuy wax ci ñun yenn genre détails yi moo tax mais bi wax jotee nag dañuy wax parce que dañoo sonn rawatina nag mbër yi nga xamante ne nii dañoo jëloon avance boobu ba léegi ku ci mel ni Siteu ak Papa mu dëgg dee dëgg ñooñu dama leen sax yërëm. parce que baam ga ñooñu mais ñooñu dañuy jeexal tàkk ñooñu amat yoratuñu dara Ama Baldé Modou nga xam ne moo war a dekkilaat làmb. njarndeem la. Papa Sow Siteu Tapha Tine euh, Boy Niang Eumeu Sène Lac ay ñoom Tapha Mbër ay Garga 2 Mama Lamine yooyu yëpp Franc 2 Franc oh, xam nga yooyu noonu xam nga nit ñi dañ ko namm nañ ñu jàppale. utal ñu solution ak nu mu gën a gaawee ah? man man man man fu ma jëm. fi ma jëm ñëpp xam nañu. tur bu bees bi tur kii da lay naxu changé ma tur. maa ngi ci Moussa Dioum jaalu muus lañ ma xame ak timbar mas non bu koy wala bu ko yëree du ko nettali. ku wet laaj sama grand bay Diouf. waaw ah, yéen xam nga gars rek li ñu fi mooy lépp mooy dajaloo bi li ko waral mooy. feebar bi rek di ñaan yàlla mu jóge bi te jàpp nañ suñu espoir bi ñu am xam na ndaw yëpp ci lañ yëngutu ubbi espoir yëpp des làmb tey ji message ngay laajte mooy ministre bi rek mu jàppale ñu te xam ne ñun ay ndaw réew mi lañ ci réew mi lañ ci dëkk bi dëkk te xam ne demuñ fenn ci lañuy teral suñuy waajur kon ñu gën ñu jàppale xam ne ñun ñun lii mooy suñu métier daan gis góor a soog si lu bari simple beeg lépp góor a soog affaire yëpp taxaw góor a gis ñu ko fenn. waaw li tax moo taxaw mooy gisatuñ fu ñu ko tëggee rek bu ko gisee ñu ngi si ndax ñun ngi suñu entraînement waaw ku ñu gis xam na ñu ngi suñu entraînement kon ñun dañuy rek merci à aussi xam nga di ko di ko souhaité suma mbokku chrétien yëpp ak suma mbokku musulman yi aussi tamit parce Sénégal benn la kenn mënu koo xar ñaar di wax ñëpp joyeux Noël. mooy yàlla na ñu yàlla defal jàmm ak feebar bi ne ci dëkk bi muy mbos bi xam nga yàlla na ko fi suñu borom jëlee waaw yàlla def jàmm ci dëkk bi parce que fii jàmm rek moo fi xaj dara xajoo fi lu dul jàmm. Franc gis njabootu làmb woote tey ñu gis icône de la lutte ñëpp ñëw jii la moo nekkoon seen teewaay fii. mais c'est normal parce que ñoo bokk lu ñuy xeex ñun ñëpp te te kenn benn mbër mënul mënul dem bàyyi sa morom tey balaa nga xam am mbër bu xew la fii nii ñëppay ñëw. xam nga tey lii ñoo bokk xeex bu ñuy xeex fu combat la dañuy xool nuñ ci génnee rek waaw. combat bu ñu xamul adversaire fu mu dëkk la. waaw gis nga mais mais daal ñu ngi fu mu toll nii daal essan bi dañuy kii état xam nga pour mu jàppale si aussi tamit dañuy ñaan aussi xam nga pour ñu xool nu ñu arranger affaire yu bëri quoi jël si ay mesures de barrière waaw. baax alhamdulilah waaw ñu ngi baax. ñu gëj la gis ba tax tey sa teewaay fi. waaw dafa jaadu nag parce que suñu ñoo woote waa làmb bu ñu wootee ñëpp lu waaye jàpp rek da nga ko war a bàyyi te teew. njabootu làmb bi ñu wootee mbër yëpp ñëw te tey li tax ngeen ñëw fii mooy lan làmb ñu ubbi ko. waa làmb dafa war a ubbi parce que ñun tamit depuis dix mois ñu ngi toog bëreewuñ ñu dara te ñun amuñu ñu dul làmb nañ ñu jàppale ñu xool ñu ne respecté mesures barrières ñu ubbi làmb ji ñu bëre. yaa ngi ne fi ñu doon lamb def huis clos est-ce que nangu nga si loolu. non lamb moom dëgg yàlla. neexul neexul lamb yi supporter yi ñoom mooy fay. moom balaa neex supporter yi nekk fee nga tuus yaram bi tàng tax ñuy wax lamb. Ah. waaw. ban ngay lancer suñ papa xanaa di wax monsieur le président rek mu jàppale ñu ubbil ñu làmb ji lépp loo xamante ni muy mesure la ñu respecté ko ñu bëre lu wàññi dara incha allah. kon bonne chance. jërëjëf jàmm xew. ñu ngi lay fay. laa gis ba tey. waaw maa ngi ni sant yàlla rek. alhamdulilah. sa teewaay fii en tant que Gris Bordeaux seen papa mag Gris Bordeaux woote. waaw tey monde làmb ñoo aye njabootu làmb yëpp daje fi xam nga làmb famille la waaw sunu président Gris Bordeaux woote ak sunuy mag ñun ñu nekk seen i rakk wuyu leen kon aussi tamit euh, ndax lépp ngir bëgg bëri rek. parce que tamit ñun amuñu leen lu dul làmb làmb lañ am ñun làmb lañ yaakaar moom lañ xam. kon aussi tamit buñ tëjee làmba ji nii surtout ma ay mbër yoo xam ne dañ jënd avance di entraîner xamoo ko ñu ngay bëri xam nga loolu dafa métti waaw moo ñuy ñaan président Macky Sall la mu dimbali mbër yi jàppale leen ñu mën a bëre. keroog boo ñaa def sorti lancer appel tey ngir boo doon ñëw def sorti moom tamit war def sorti pour def lancer appel tey jii ban message ngay lancer yow tamit. waaw ah, loolu lépp la rek mun daal li ñuy wax mooy ñun ñu ngi topp suñu ginnaaw mag yi di leen déglu. ñoom yoon wu ñu jaarale rek ñu jaar foofu ñun li ñuy ñaan mooy Macky yi sunu Macky sunu pàpp la sunu lépp la mooy sunu njiitu réew ñu ngi koy ñaan mu bi làmba ji ñu bëre ñun amuñu leen lu dul làmba loolu rek la ñuy ñaan.